de cette journée, comme vous le savez, c'est quand même euh, de donner de notre sang afin euh, d'alimenter les banques de sang des hôpitaux de Ahmed Sahid Ndjegen et l'hôpital régional euh, Saint-Jean-de-Dieu de, Thiès. Le constat a été fait comme quoi il y a régulièrement des manques de sang au niveau des banques. Donc c'est un acte de solidarité que nous avons initié pour venir en aide un peu aux structures sanitaires de la région de Thiès. Alors là, je ne sais pas combien de poches nous sommes pour le moment. C'est seulement à la fin que nous pourrons faire le décompte mais euh, compte tenu des renforts qui nous sont venus de la gendarmerie, de l'armée, du groupement mobile d'intervention, euh, de l'agence de sécurité de proximité, ainsi que de mes propres effectifs, c'est-à-dire euh, les agents du service général de sécurité publique, je pense que nous, nous tournerons autour de 150 voire 200. En tout cas, l'objectif c'est de collecter au minimum 200 pochettes aujourd'hui. nous ne sommes pas en partenariat avec les hôpitaux. C'est un acte que nous avons initié comme ça, ce n'est pas la première fois c'était déjà fait dans certains services où je suis passé. Donc c'est une initiative propre. Donc j'ai personnellement saisi euh, l'hôpital régional de Thiès pour leur euh, informer quand même de ma volonté d'organiser un don de sang afin d'alimenter quand même la banque de sang, compte tenu les appels euh, qui sont régulièrement faits pour demander aux populations quand même de venir donner de leur sang parce que l'hôpital en a toujours besoin. Alors c'est un don qui est ouvert à tout le monde. Hein. La preuve c'est qu'on a fait des affiches où nous avons invité tout le monde. Alors, mais nous devons d'abord compter sur nos propres effectifs, c'est-à-dire euh, la police, mais aussi nos frères d'armes. La gendarmerie, comme vous avez vu, elle est venue euh, massivement. L'armée aussi, euh, les sapeurs-pompiers, donc les ASP seront là, ainsi que toute bonne volonté quand même qui veut donner de son sang pour aider les structures sanitaires de Thiès don de sang bi dañ ko organiser tay pour collecter deret bu bare bare pour mën a suñu hôpitaux yi c'est-à-dire hôpital régional euh, Ahmed Sahin Ndiéguène ak euh, Saint-Jean-de-Dieu euh, je pense que régulièrement dañuy dégg wa hôpital di Woté, ci radio yi di ñaan askan wi pour mu ñëw des deret parce que dañu am ay malades yi nga xamné euh, dañu soxla deret donc au lieu ñuy tok di xaar ba hôpital di Woté, ñu ne dañuy organiser li bu ko defee hôpital dina mun a am deret bu bare bare bare bu muy jël fii denc ko euh, su ko defee buñ ko soxlaa rek ñu dem jël foofu je pense que lii dafa nekk li nga xam ne dañ ko war di organiser régulièrement parce que hôpital warul toog ba deret bi jeex ba ñuy woote pour nit ñi ñëw mais bu ñu sañoon dañ koy organiser régulièrement mais c'est c'est un peu difficile quand donc nous euh, ñu sañoon euh, dañ ko organiser régulièrement nous ñu ko defee ñu mobiliser suñu mbokk policiers militaires yi sapeurs yi di wo tamit ñëpp ñi nga xamné mëna mën nañ ñoo maye seen ñu ñu ñu ko parce que policiers les militaires yi gendarmerie ak sapeurs yi 7 heures parce que si message est leen envoyé dañ leen 7 heures donc 7 heures fekk na leen fi dañ tok sa di xaar hôpital. ñoom dañuy teel a bu ñu leen wooyee léegi suñu yeneen mbokk yi ñu ngi xaar peut-être fii ak 10 heures 11 heures dinañu ñëw. waaw nii nii nii xaw ma ñaata poche la ñu joxe parce que ñoom ñooñu mooy ñoom mu mën a wax après ñaata lañ joxe mais si li ñu table parce que armée nee na ma dina ma envoyé entre 40 ak 50 personnes gendarmerie idem GMI envoyé na ma lu toll ci 70 personnes. Euh, sans compter nak ñi nga xamné ne samay propre effectif la ñu maanaam ñu commissariat central commissariat premier arrondissement poste police Ngent Medina Falaki ak peut-être euh, yenen mbokk yi nga xamné dinañu gis ni dañuy nyu deret ñu nyu ñu mé en tout cas suñu objectif moy ñu am entre 150 et 200 pochettes tay bu buñu bu non anduma ci ak ay partenaire mais quand même am fi ay doomu ties yi nga xamné jappalé nañu bu baax si logistique bi ku mel ni directeur général de la poste vraiment euh, daf ñu indil soutien bu bu am doole loolu ñu may sax pour ñu mëna am bâche jënd boisson defar sandwich yu bare parce que wa hôpital dañ mo wax ni ñom amuñu collation bu doy mané len leen du problème moo bima démé djégé yenn bonne volonté yi dëkk fi Thiès ñu mel ni Sirédia vraiment ils ont immédiatement accepté pour indi ñu seen i seen i ndimbal maa ngi koy sant diko diko gërëm bu baax baax. Je remercie aussi Prestige